dalati nañu bettati nañu euh, tàqali ñu ak ñi nga xamante ni saa su ne dañ leen di bëggee wala bëgg leen bii tombeek euh, sunu mag sunu tante sunu yaay sunu xarit sunu nattangoo euh, dëggan chimère bi nga xamante ni moom moo génn àdduna wàññeeku ci ñun gëm-gëm ak sunu bokk banqaasoo si diine lislaam dafay fàttali ne ko war a nangu ak lu mu métti métti dellu sax gën a faratal li nga xamante ni moom mooy màggaayu yàlla ak it ñak mëna xëccu ak mom ndax mom rek la mom mo mën té bokku ak kenn waye nak di tubab di wax on nous a créé à son image la femme lo xamanteni dañ koy jël xeyna tuti ci mom yalla ci baxam lool nak pour nga bok ci du lo xamanteni lu yomb la boo ci bokkee nag da fës ci sa jamono ànd ci li nga xamante ni moom mooy société bi moo xam ci espace bi ak ci temps bi ak fépp foo xamante ne war na fa mun a nekk moom Deguene Chimère rek mu bokkoon si ñi ñu ràññee ci wàllu tas xibaar ci li mu koy defee ci li nga xamante ni moom mooy façon yi defam waxinam bi nga xamante ni da koy woddu saa su ne déglu bi nga xamante ne mën na koo déglu lépp nag def ko ci ab yanj boo xamante ne ku ko gis war koo naw moom Deguene mu dem bàyyi fii nakaar li ko waral nag moom mooy mbaax bu mu fi samp ak rafet bi nga xamante ni moom la rafetal liggéey bu mu yàggoon di def mu bàyyi fi rek ndono boo xamante ni buy wéy ba faw ndax lu ñuy wax correction dafa bokk ci euh, vertu moom nag dafa nag jàngale li nga xamante ni moom mooy jub dëggu euh, respecté ñi ngay liggéeyal ba pare def ko ci anam yi nga xamante ni moom moo gën a rafet léegi xanaa mooy fomp leen seen i rangoñ ngeen ñi nga xamante ni saa su ne ngeen dee ko ay secret mu jàppale leen si ngeen waxtaan ak moom mu gindi leen euh, gunge leen te it euh, bokk na si ñoo xamante ni ay néew du doole yu doon ñëw di sàkku si moom ndimbal mu koy def saa su ne des rek mooy ñaanal ko fa mu jëm dàq fi mu jóge